Bienvenue sur Salam Vision. alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursaliin sayidina muhammad ibni abdullah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaan ila yawmi diin mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu soppe sayidina muhammad yépp mboolem fu waaye mën a ne ci biir réew mi ak ci diaspora bi yépp ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare ci seen émission bu mag bii keppaaru sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci benn télévision Salam Vision télévision télévision bu mag boobu ñu ngi leen ci nuyu di leen ziara di jiital ci nuyu bi xalifa généraux yëpp waaye nag di ci jiital sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla wér ak wér la ci barke yonent bi alayhi salaam ñaanal ko njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp yàlla defal leen jàmm defal leen sutura yàlla yokk seen leer ña jiitu ci barke sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy def dem ba tuuba fekk fa. sunu maam Serigne Mountakha Mbacké ñaanal ko moom fan gudd lool ba ànd ak wér ak ak sutura ci barke sallallahu alayhi wa sallam njabootu Mawlaay Serigne Touba gi yëpp dem ba kaw nag Cheikh Tidiane Niass ca ndew na ziar ko ak njabootu maam Khalifa gi dem ba fekk fa Serigne Maye Niass ziar ko ak njabootu maam Cheikhul Islam gi yëpp. noonu def dem ba Bouchra ziyaara fa xalifa ba Serigne Ahmed Serigne Habib Ndiaye Bouchra ñaanal ko fan gudd lool ba ànd ak wér ci barke yonent bi alayhi salaam ci barke sallallahu alayhi wa sallam am mboolem xalifa seen royu Thiénaba mooy Laayeen Taaleen Kunta mboolem foo xam ne rek soppi yonent ba fa ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziara soxna Fatou Faye ma nga Fatick taaliba Cheikh Sadul Abi la ñu koy nuyu bu baax di ko ziara ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ci seen émission bi keppaaru xam Mouhamed seen xarit seen soppi oustaz Mouhamed Ndiaye sopp bi fas yéene leen a waxtaan ak kan mooy sayyidina Muhammad alayhi salaam xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko indi pour mu yërmaande ci jaam yi xam nga ne yonent bi alayhi salaam yàlla daf ko yónni muy rahmatan lil alamina ndax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina la yàlla waxoon sayyidina Muhammad dama laa yónni ngay jëmm yërmaande ci nit ñi kon jëmm yërmaande jooju doxal ko loola tax gëlëm ñëw na ci yonent bi alayhi salaam di ni ñu koy def ci teg ko tiisaay di ko liggéeya di ko teg ay coono gën a ñëw ba ci yonent bi alayhi salaam na ko yow la yàlla waxoon rahmatan lil alamina te man ci mbindee fi laa bokk kon waxal ki ma moom mu wàññi coono bi may teg ci la sallallahu alayhi wa sallam ci borom gëlëm nga na ko sa gëlëm gi ñëw na dima kalaam ak yow nee na nga wàññi coono yi ñu koy teg kon sayyidina Muhammad mooy rahmatan lil alamina yi tax ñëw na di ko nen yi nga xam ne bu ko nenee ci àll yi saxaaba yi dañ koy won ni pittax ñëw fekk fi sallallahu alayhi wa sallam toog ak i saxaaba yi pittax mi dóorante ay mbaggam sallallahu alayhi wa xam li pittax mi wax ndax moom rasulillahi kàddu kaddu mbooleem si Sayyidina Muhammad dégg na ko bu doomu aadama bu jinne bu mala bàyyi ma yépp Sayyidina Muhammad dégg na ko ci la yonent bi waxee alayhi salaam man fajaa haati alxamaam kan moo métital bi la pittax pitax mi ñëw na di ma tawat mooy nen yi nga xam ne yeneen koy jël kon rahmatalil alamina googu mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg a waxtaane moom commencé wa innahu id araada allahu nasatana abaana min nuurihi nuuran nabil alamin samaam seex sidil xaaj maalim nee na wa innahu lay mbir tey mbir is jamono ba nga xamee ne araada namm na allahu yàlla nasatana sos ñu wala abal abaal la faccalee la jëlee min nuur yi ci leeram yàlla nuural na alami leer yonent bi nga xam ne al alami ku ñu xam la ci kaw suuf al alami ku ñu xam la ci biir bàmmeel alami ku ñu xam la ci kaw asamaan al alami doomu aadama yépp xam nañ ko waaye tamit jinne yi xam nañ ko bàyyi bàyyima yi xam nañ ko pitax yi xam nañ ko waa aljanna xam nañ sayyiduna muhammad alayhi salaam waaye tamit waa safara xam nañu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy alaalami kenn mënu koo umpile moom rasulillahi alayhi salaam ndax yàlla waxoon na ko rafaana laka zikraka yow sayyiduna muhammad danaa la siiwal ba nga yëg ne siiw nga fu mu suma tur yegg man yàlla subhanahu wa taala yow rasulillahi alayhi salaam sa tur dana fa yegg moo tax sayyiduna muhammad kuy siiw moo la gën a siiw kuy xew moo la gën a xew du xewi du sàppi moom sayyiduna muhammad alayhi salaam boo bëggee xam daraja yonent bi alayhi salaam da ngay nodd boo noddee tudd yàlla gannaaw boo tuddee yàlla sidna muhammad nga ciy teg booy leqaam boo tuddee yàlla sidna muhammad nga ciy teg boo taaya il faut nga tudd yonent bi alayhi salaam kon sidna muhammad mooy ki nga xam ne al alami la kenn umpaliwut sidna muhammad alayhi salaam kooku nag keroog ba yàlla na may amal mbindeef yi daa jël ci leeramam subhanahu wa génne ci bind ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg ne waaw su dee yàlla dafa jël ci leeram bind ci yonent bi alayhi salaam kon yàlla leeram am na lu wàññeeku ndax soo jëlee liitaru ndox nga am loo ci tànkee liitar ba day wàññeeku kon ñu ne kon leeru yàlla am na lu wàññeeku ci moom déedéet si di see xam ne Tijaan si Almaktum ba mu koy firi daf ne exemple boo taalee benn sondel ci benn sondel boobu nga taal ci fukki sondel wala lu la xam nga ne leeru sondeel bu njëkk bi du wàññeeku Seydina Muhammad nag leer la boo xam ne yàlla daf koo jëlee ci boppam mu subhaanahu wa taala bind ci rasulillah yonent bi leer loola taxaw rasulillah yi ne ana nuur min allahi wal muminuuna kulluhum min fayru nuuri Seydina Muhammad nee na leer boo xam ne laa maa ngi bàyyi koo ci subhaanahu wa taala leer laa boo xam ne maa ngi bàyyi koo ci yàlla mbooleen ku gëm yàlla yaa ngi bàyyeekoo ci leeru sayyiduna muhammad alayhi salaam mbooleen mbindeef yaa ngi bàyyeekoo ci leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax leer la bu bàyyeekoo ci yàlla ndax yàlla bi mu jëlee leeru yonent bi daf ko xaaj bind si li mu bind ci xalima gi lii mu bind ci aliwa bi lii mu bind ci lawhul mahfuus li mu bind ci kursi yi li bind ci aljanna li mu ci safara li mu bind ci asamaan li mu ci suuf li mu bind ci ngelaw li mu ci lépp moom subhaanahu wa taala lépp mun ko jëlee ci leeru yonent bi alayhi salaam kon inna al awalima aaliha wa saafiliha asaatum talaat min afdali nasami gis nga univers bi mooy asamaan yàllaa ko bindee ci leeru yonent bi alayhi salaam asamaan ak ña nekk ca kaw asamaan yàlla leen bindee ci leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam biddiw yi ngay gis yàllaa ko jant yàllaa ko bindee ci leeru yonent bi alayhi salaam weer yàllaa ko bindee ci leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp rek mi ngi bàyyi ko ci leeru yonent bi alayhi salaam wasaafi wasaafilaha mooy univers bi ñu nekk muy suuf si ak li nekk ci biir suuf si yëpp mooy njariñ nekk ci biir suuf si pétrole beeg gaz beeg mooy or beeg jamaa beeg lépp mu ngi bàyyeekoo ci leeru sallallahu alayhi wa sallam loolu ceeñeere ci loo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax booy wax ne yonent dafa mel ni ki jant waroo wax yonent dafa mel ni ki jant danga naan jant moo mel ni yonent bi alayhi salaam ndax jànt ñu ko bàyyee mu ngi bàyyeekoo ci leeru yonent bi alayhi salaam ndax anta misbaaxu kullu fadli fa maa tahduru illa an dawaayikal atwaabu Mahamad Bouchayri dafa wax ni Seydina Muhammad yaay lansu bépp ngëneel yow Seydina Muhammad ne na bépp boo gis muy leeral rek ne na ngi bàyyeekoo ci leeru yonent bi alayhi xam nga croix bi mi ngi bàyyeekoo ci jant dëkk ba ëpp ko jant rek gën laa baaxi courant bu ñu liggéeyee solaire bii loolu mi ngi bàyyeekoo ci leeru yonent bi kon dañ ne jant wala courant bi ngay yiitoo yow leer googu mi ngi bàyyeekoo ci leeru sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi bépp leer boo gis muy leeral bàyyi xel leer googu mi ngi bàyyeekoo ci leeru sallallahu alayhi wa weer mi ngi bàyyeekoo ci yonent bi alayhi salaam géej gi géej lu muy tabe tabe tabe Sayyiduna Muhammad moo ko gën a tabe géej lu muy tabe tabe Sayyiduna Muhammad moo ko gën a tabe ndax géej léegi-léeg nga dem sax uti jën doo am jën li nga bëgg waaye rasulullah heure boo demee ci moom guddi wala bëccëg heure boo demee ci moom dana la may ba gis la naan ëllëg ñëwaatal moom Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon géej da nga naa dafay mel ni yonent bi waaye yonent bi melu lu géej ndax yonent bi moo gën a tabe géej xàmmiwu noonu xàmmiwu soppeem yonent bi yow mi ko bañ ak yow mi ko bëgg la boole yemale ci benn wàccuwaay boo ñëwee di ko ñaan yow mi ko sopp ak ki nga ba ki nga xam daf koo bañ ñëw di ko ñaan ñoom ñëpp la bokk yemale moom sallallahu alayhi wa sallam kon Seydina Muhammad moo leer booy gis yàllaa ko amalee ci leeru sallallahu alayhi moom sayyidina Muhammad alayhi salaam wa allama llahu hadina nubuwwatahu wa kaana aadama bayna nafsi wa nasami gis nga yonent bi muy nekk yonent mu ci diggante ban ak ndox pareegul yàlla xamal sayyidina Muhammad ne ko yonent nga bi muy nekk yonent booba aadama pareegul xamal sayyidina Muhammad ne ko yaay ndax leer yi ah yonent bi leer bu bàyyi ko ca yàlla subhaanahu wa taala loola tax yonent bi nekk na yonent te booba aadama bayna nafsi wa nasami booba aadama mu ngi ci diggante ëpp ah, mooy pàkk ñu koy defar përeegul diggante ndox ak ban përeegul yàlla xamal sayyidunaa Muhammad na ko ak yaay yaay yonent bi nga xam ne yaay seefa yonent yëpp ndax yàlla bi mu dénk bindee wax yëpp teg ci benn saal yàlla alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ruux yépp fa sama ruux ruuxu keneen xaddi su ruux ak ruux ñépp ñu ca jotaay ba yàlla naan alastu bi rabbikum ndax ma seen borom waaye ruux yi dañoo muuma mënuñoo wax booba ruux yépp muuma leenu mënuñoo wax ruux yonent bi alayhi salaam moo ne balaa an kañ balaa an kañ yàlla yaay sunu borom ci la ruux yépp nag soog di mën a wax ne yàlla yaay sunu borom kon sayyiduna Muhammad nekk na ak yonent te booba aadama mu ngi ci diggante ndox ak baat sallallahu alayhi wa sallam keroog ko yàlla defee dalee leeram dugal ko ci aadama alayhi salaam aadama keroog dafa jaaxle ndax ndax keroog ba yàlla ko yaa aadama uskur anta wa zawjuka al janna dëkkal aljanna yàgg sa njaboot lu leen neex lekk leen lu leen neex naan leen waaye garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege keroog ba yàlla dogalee Iblis ñëw jaxase xawaa ba xawaa lekk ca jëkkëram ja lekk ca ñu am problème aadama yére ba mu soloon dafa naaw turki ba mu soloon dafa naaw mu def yaramu neen garab bu mu dugg pour làqatu ci garab googu garab danaa ko mukk du fii ndax aadama dangaa def njuumti aadama di tuñ tuñu ci aljan ak yaramu neenam di tuñ tuñu ci aljanna ci garabu fuddal lu mujj dem làqatu fuddal moo ko làq loolu tax ñu ne wax ñu wax ni fuddan kum nekk ci sa loxo fekk af fekk muy dañ doo teexlu ko mbégte jigéen bu buggee fuddanu jëkkër ji ne ko doo fuddanu fuñ mën a dem ci àddina jigéen ja mooy am ndam ndax fuddan dafa bokk ci sunna te fuddan kum nekk ci sa loxo doo doo teexlu ko mbégte fekk dañul aadama toog di jéggalu yàlla yàlla na maa lànk maa bañ aadama jéggalu yàlla ay ay yoon yoonu yoonu yàlla faaloo ko benn bés aadama ne yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma ci daraje muhammadu rasulillahi te booba yàlla bindagul yonent bi jëmmam yàlla na ko waa aadama foo xamee kooku aadama fan nga xamee muhammadu rasulillahi aadama na ko yàlla genn wàllu fan bi ma am ci aljanna su ma doon doxal ci aljanna mbeddi aljanna yi ma fiy gis ñuy publicité turu yonent bi salaam ñu ciy bind laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi miiru aljanna yi ma ciy gis bind ci laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi kuddu aljanna yi ñuy lekkee ma gis ñu bind ci laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi tikkati ya ma gis ñu bind ci laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi palaat yaag boor yépp ñu ngi ci bind laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi yàlla ma xam ne yow li nga teddee yàlla li nga màggee ak li nga toll koo boole turam ak sa tur rek kooku am na lu mu tekki ci yow ah, yàlla na ko aadama kooku kenn du ma ñaan ci moom dara ma bañ koo ndox aadama danaa la jéggal du fi yem danaa la wàcc ci suuf nga fay am njaboot njaboot boobu di ma tooñ di ma jéggulu di ma tooñ di ma jéggulu ma ne ñuy jéggal ba ëllëg yoomal xiyaamu waaye la dugaleen aljanna ngir dara jee rasulillahi alayhi salaam kon mbokk yi kooku mooy sayyidina Muhammad kooku lañ doon waxtaanee ci seen télévision bu mag bi Salam Vision di ñaan bi yàlla na ko yàlla barkeel ci barke Sayyidina Muhammad alayhi salaam télé na boo xam ne askan wee ko ko tax a jóg mbiru askan wee ko tax te inna allaha fi l awni l abdi maa daama al abdu fi awni l aqihi la Sayyidina Muhammad wax nee na yàlla mu ngi ci ndimbalu jaam bi fekk jaam bi mi ngi taxaw di jàppale moroomu jaam bi kon télé la boo xam ne. askan wi rek ko tax a jóg kon askan wi neen ñoo def ci seen loxo ak seen i xelaat ak seen i kàttan ak seen i doole ndax ko defee nañ xam ne seen bopp lañ ko defal ndax xam ne dafay jottali askan wi li neex askan wi te lépp na mu tegu ci yar ak xam-xam ak diini kooku tabaarakallahu jar naa jàpp kon télé baa na ci ñëpp def seen ak seen doon ak seen kàttan yàlla barkeel seen yëngatu ci barke sallallahu alayhi wa sallam di ñaan xaji sam yàlla ko yàlla barkeel barkeel ay njabootam ci barke sallallahu alayhi wa sallam ñaanal soppeem yépp yàlla dafa jaam ak ci barke yonent bi alayhi salaam di nuyu ay dara mbu bu Serigne Babacar nekk fii cité Aline Sow di borom mbir di borom xam-xam ñu ngi ñaan yàlla barke lépp lu muy yëngatu ci barke yonent bi alayhi salaam moo gaaw ci problème moo gaaw ci saafara jàngoro yi waaw moo gaaw ci problème yi moo gaaw ci saafara jàngoro yi moom soxna kii ay dara bu ba Serigne Babacar lu sa jàngoro rëy rëy rëy wala lu sa problème rëy ci moom mu faju kon ñu ngi koy ñaanal jaamu bi ak biti ci ba ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu xaaji Moustapha Kawar mi ngi France ak soxnaam soxna Awa mi ngi Intesa soxna Ndiaye ñu ngi koy ziar mi ngi France Hadj Pape ñu ngi koy ziar ak sama turandooru jooju soxna Mariama Fofana mi ngi si Tafaja maa ngi koy ziar bu baax Hadj Babacar Mbaye Sow mi ngi mboor soppi yonent bi alayhi salaam la bëgg ñëpp nag maam kër maam borom Tuubaa ma bëgg leen lool soppi leen ñu ngi koy ziar bu baax soxna maam Bousso Lo surtout suñu jàpp Abdourahman loolu maa ngi koy ziar bu baax di ko ñaana jàll la biir jàmm biir ak biti ci barke sallallahu alayhi wa sallam ziar soppi yonent bi alayhi salaam